ci bisub uh, Cheikh Mouhamadul Fadal ñu màggalu Kazu Rajab uh, Cheikh Mouhamadul Fadal nag yaakaar naa uh, doonatut koo xam ne dañuy wax moom mooy kan yaakaar naa ci yoonu morit mooy koo xam ne moo gën a neex waxtaanee sax mën naa ko wax donte ku jafee waxtaane la ci wàllu baatin waaye zahir si daf koo rafetaloon ci yërmande diggam ak nit ñi jamono ji mu fi nekkee. ku ne xam na ne ak ñàkk ak tumuranke Cheikh Mouhamadul Fadal moom mooy ki nga xam ne moo ko fi jëlee ndax ku ne xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mu baax ma nga xam ne jàmbari Serigne Touba ji te kenn mënta tudd Cheikh Mouhamadul Fadal te doo ko tudd bi mu fi jógee ah, jamono métti woon na euh, jafe-jafe yi amoon ci wàllu guerre yi nga xam ne moo traversé woon addina bi yëpp Cheikh Mouhamadul Fadal ñëw ci marxala boobu waaye nag bi mu ñëwee dafa mel ne ah, ak naataange xéewal la tawféex la goo xam ne euh, dafa daj fépp ku ne xam ne ne euh, euh, Serigne Touba wax na ci moom ay kéemaan ak ay ay mbir yoo xam ne doy na sëkk rek ñoo xam ne Cheikh Mouhamadoul Fadal amul morom daana wax ne Cheikh Mouhamadoul Fadal ab cër la boo xam ne dafa sotti woon ba noppi dafa sotti woon ba noppi suñ borom waroon koo def muy malayka wala muy ab wala muy wala muy wala wala wala wala muy wala muy leneen loo muy mu bokk ca ñeneen ña nga xam ne dañuy jaamu yàlla ci beneen aalam waaye nag ah, ci taw feexi sëriñ bi ak diggam ak boromam tax suñ borom xéewalee ko ko ah Cheikh Mahamadul Fadal nag doy na sëkk rek ah, ci réew mi képp ko jàq Cheikh Mahamadul Fadal ngay woo ah, yaakaar naa boo demee sax ci yeneen barab yi nga xam ne. Euh, ña fa ña fa ña fa féete wala ci yeneen këri diine yi nga xam ne sax xëñ na mën nañ leen tudd di tudd beneen tariqa da nga fay fekk Cheikh Mahamadul Fadal mu di fa am ay turandoo di fa am ay soppe di fa am euh, yeneen ak yeneen loolu lépp nag li muy mandargal mooy ak ak bëggam Serigne Touba gi nga xam ne dafa newoon ci moom waaye nag yërmande ji nga xam ne it daf koo amoon ci réew mi yëpp euh, ku ne xam ne ne Cheikh Mahamadul Fadal naataange la xéewal la tawféex la ci réew mi nga xam ne mooy euh, Sénégal euh, ba sénégalais yi euh, ak ñeneen ñu du sénégalais yi sax boo demee ba ci yeneen nationalité yi nga xam ne génn na Sénégal dangay fekk seenu seen xol ak seen bëgg ni muy jëmee ci Cheikh Mahamadou Fadal dafay nekk lu jéggi dayo waaye nag mu doon koo xam ne nag soxna Awa Bousso mi wajuram rek doyoon na sëkk jaloore ndax moom day Sëñ Tuubaa ñaari yoon ah yaakaar naa eh, ci ci ci ci ci taarixam ko xam fi nga xam ne moom la cosaanoo ba yegsi ci sëriñ bi da nga xam ne wàccaay la woon wu yàgga yàgga yàgg woo xam ne suñu borom moo ko waajoo loon mu doonoon loo xam ne ngañaay la mu nekkoon loo xam ne tawfiix la eh, ci mboolem umma islamiya tey nag di bisam bisam nag eh, gis nga ni li mu dëppool rek tawfiix la daana wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dana la mën a cëpp loolu mu di ca junju ne al isra wal mi'raj la te mooy bis bi nga xam ne ci la yonente bi salaam rañaane ci la ko suñu borom rañaane woon mu dem fekki ko fa mu ko fekki woon ak ya aju lépp ak tawféex yi ak ngëneel yi nga xam ne yëpp indaal leen na ko ummal islamiya kon Cheikh Mouhamadoul Fadal ngoog jullit ñi mbokk taalibe yi jóge nañ fépp ci àddina bi ñëw ngir fas yéenee dundal bisam bi ñuy ñaan suñu borom defal ñu ci ay tawféex ah mbooleem loo xam ne ñaan nañ ko fi ah muy muy ay tawféex ci réew mi di tawféex ci monde islam bi yëpp Ah, di ñaanal it ah, ah, Séné di ñaanal Sénégal it suñ borom def ko muy réewum xéewal at mi di atum naataange wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. alaaji falilu sa sama booyul te mbay ma ñaaw lu ñor mu jébbal baayam ci réew